joteer fële ca assemblée nationale nga xamee ni euh, jàppandaw bi tey la. tey la jeex euh, ginnaaw kon euh, ñaari ay bés biñ ko tàmbalee muy ministre yëpp jaar fa ministre des finances ci boppam kon ci 9h ñu koy xaar ñu war faa waxtaanee rek mbiram dépense commune ak projet de loi de finance bu 2024 ñu jàpp ko ci lu ëpp 7000 milliards mi ngi noonu kon moom Moustapha Ba démb nag ca conseil des ministres adopté nañ fa projet de décret bi nga xamante ni moom moo convoqué corps électoral. bi ngir élection yi ñu jàpp ko ci dat euh, bi nu wax di ñaar fukki ak juróom ci weeru février ci atum 2024 ci tënk ba léegi ak soxna si Aminata Touré moom mi ne démb dafa demoon ngir visite ji Ousmane Sonko ñu lànkal ko kon ndax dañoo jàpp ni daal euh, cachet bi ñu def euh, ci permis de visite bi dafa leerul gi Marius Sagna di député ànd ak soxna si daal di ñaawlu lu nimel moom Ousmane Sonko moom ak bokkam ci élection yi ay avocat am ku ne xam na ni am na benn rabat d'arrêt boo xam ne dañ ko déposé woon ca cour suprême mu ni na ci am loolu nag ci wàllu droit pénal moom mooy lan di rabat d'arrêt am na ay leeral yu ci professeur Ndiak Fall indi moom enseignant chercheur la ci droit pénal université Cheikh Anta Diop mu Ndakaaru Cheikh Diop moom moo taataan ay kàddoom. li ñuy wax rabat d'arrêt day prox ndoll boo xam ni. maanaam loi organique. ci cour suprême loi bi saytu cour suprême nee na su fekkee ne njuumte am na ci biir dogal biñ jël te njuumte boobu jógewul ci ñi nga xam ni ñoo doon euh, euh, yëngu ci euh, ëttu attekaay bi maanaam ñi demoon ci ëttu attekaay bi pour ñu atte leen njuumte boobu jógewul ci ñoom mën na am pièce yoo xam ni dañ ko waroon joxe fàtte ko mën na amit li tubaab di wax erreur de procédure loolu boo amee Euh, décision boobu maanaam dogal ba cour suprême jëloon dañ koy saytuwaat ci li ñuy wax rabat d'arrêt rabat d'arrêt nag bu amee maanaam euh, ci yoon cour suprême yëpp dañu bokk daje maanaam li ñuy wax les chambres réunies cour suprême yëpp dañu bokk daje bu ñu dajee nag jël dogal dogal boobu mën na dëggal atte ba ñu jëloon mën na yëpp neenal atte boobu ci euh, maanaam rabat d'arrêt léegi loi bu bees bi nee na daal c'est pas suspensif boo déggee c'est pas suspensif mooy dogal ba ñu jëloon dañ koy wéyal ba am lu ko neenal ci diggante bi euh, ba léegi dañuy des ci wàllub yoon Chérif ak euh, ministère de la justice di weddi xibaar yi nga xamee ni dañu ni dafa am euh, ku wuyoo Moustapha Diop te ñu defoon ko sous bracelet électronique mu daw ministère bi ci communiqué ñi ngi leeral ni bi ñu xoolee ci base de données centre de surveillance électronique amul fenn foo xamante ne ngeen gis nañ fa nit kuy wuyoo sax turu Moustapha Diop ab enquête euh, bi ñu ko mënee kon euh, source bi dañoo jàpp ni kon boobee xibaar euh, dara am ci ba tax na sax dinañ ci ubbi enquête ngir ñi nga xamante ni kon yooyu xibaar te wéeru ñu koy wasaare yoon mën a dal seen kaw jaawo voilà euh, ba léegi ci xibaar yi euh, ñu wax ci tëjub université Cheikh Anta bu Dakar ak SAES bi nga xamee ni euh, tey daal dafay sonné li ñuy wax la mobilisation. université morte lañ ko tuddee maanaam toog banque seeni loxo am na nag ay activités yu ni amal ñoom ñi di enseignants yi nekk ci SAES di syndicat bi ëmb yooyu jàngalekat muy am marche bu nuy tàmbale station également activité pédagogique yi bu marche bi passé it ca campus bi daal li bëgg mooy kilifa yi dégg. leen su ko defee daara ji ñu mun koo sauver ndax danoo jàpp ni danoo dafa nekk ci yoonu sànku ndax ci weeru juin lañ ko tëj ba léegi ci fitna yi fi amoon ci wàllu politique euh, ci wóolu moom président Macky Sall <coughs> moom mi nga xamante sax moom lañ gën a adressé boobu message démb xëyoon na ci beneen université muy université bu euh, Amadou Mahtar Mbow nekk ci jam Diamniadio doon fa rek euh, dalal benn ndaje buntu dee kon première édition biennale de la recherche ak innovation ci la profité ne master yi. Euh, nan dakk di ko jàngal ci ISEB yi ndax ISEB yi nga xamante ni kon mooy institut supérieur yi jagle doon wàllu formation professionnelle loolu taxu ko jokk moom président Macky Sall ñu déglu ko ci micro suñu ndaw Abdou Diouf Diagne ak Bamba Sambo. J'ai visité des stands très instructifs. des stands très très instructifs grâce à vos naa ay stand yoo xam ne mën nañ see jànge lu bëri loolu lépp nag seen centre de recherche yi moo ko waral directeur ISEP bu cees ak yow tamit mi nga xam ne yaa jiite ISEP bu Diamniadio maa ngi sàkku ci yéen tamit te wax naa ko ministre bi nañ ñu bàyyil modèle bi nga xam ne moom la ñu tëgg ci ISEP yi bu ñu si dugalal benn yoon lii nga xam ne moom lañu duppee ay master loolu dafay taxa mbébét gi nga xam ne amoon nañu ko ak li nga xam ne moo taxoon jóg ISEP yooyu le daal di nag naax saay li ñu tax a jóg mooy jox ndaw ñi ay formation yoo xam ne dafay daal di yam nag ci ñaari at bu ko defee bu ñu génnee rek dañuy daal di mën a dem wuti liggéey maa ngi rafetlu nag liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen koy amal yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci ISEP yi léegi nag li des mooy ñu daal di eggali nag tabaxu yeneen ISEP yi nga xam ne amoon nañ bébétam nag am nañ yéene tamit daal di tabax institut formation professionnelle bu mag kon daal ñu wax leen ne ginnaaw jéego yu am solo yi nga xam def nañu ko ngir nag mën dundal suñu bopp ak tamit yi nga xam def nañu ko ngir daal di xeex yenn jàngoro yi tamit ñu mën a jox suñu doom yi njàng mu baax ak bu mucc ayib jox li nga xam nag moom mooy ndox ak courant ñëpp ñi nga xam ñoom ñoo koy loo bu ñu ko defee rek mooy wan ne teg nañ jéego yu am solo ngir nag réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique bu ko defee séddoo ak doxalin gi nag dafay daal di mën a yemb. Ainsi, nous pourrons rompre le cercle vicieux pour garantir la souveraineté alimentaire pour lutter. voilà euh, président Macky Sall euh, Chérif ñu jeexalee ko ci mbirum Akon City. waa dafa benn communiqué boo xamante ni moom artiste bi euh, di homme d'affaires it euh, di ba Alioune Badara am ñu gën koo xam ci Akon génne na ko dafa jàpp ni dafa dégg lu ne ruumandaat ne SAPCO dafa bëggoon a kon dakkal convention bi mu si signé woon ngir rekk ab euh, dëkkuwaay yu bees mu tabax ko fële ca Mbodiène comme mbir yaa ngay bëgg a yéex nag moom nag dafa jàpp ni loolu dara amu ci ci yooyu xibaar ndax am na ay borne yoo xamante sax implanté nañ ko fa géomètre bi identifié lu toll ci cinquante hectares ginnaaw cartographie aérienne par drone bu nu fa daal di def euh, ay kon nee na yemul foofu ndax am na benn inventaire bu mu def it euh, ci suuf saak yu ni mel lu toll ci cinquante hectares yoo xamante ni kon bay nañ ko ba pare am na ci vingt hectares yu jot a noppi it géotechnique ak wàllu fondation euh, def nañ ci kon euh, vingt hectares ngir wane ni kon moom kon euh, li mu wax am na tey sax mel na dana ànd ak ay taskatu xabaar ñu dem ca barab ba ngir kon mu wan leen fan la liggéey yi tool dañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo Cheikh Tidiane ñu jeexale ko rek wàllu tàggat yaram ak lance bi nga xamante ne gis nga ko ci Ligue des champions démb nag Emirates lañ demoon fa la nga xamante ni kon mooy ca Londres Arsenal nag daanaka mayu leen dara ndax du mën a leen du muy métti 6-0. nee nan li mooy score bi gën a métti ci ab club bu France buy football lu ni mel ah. mhm. gis nga ko Gabriel Jesus a ngi nii dafa mel ni moom it dafa dugal. Mhm. bit yee bëri ba gis nga ko ñoom Nampalys Mendy daal am nañ jafe-jafe mel ni kon. Ah, ah. mu mhm. ngi doon ragal sax mu xaw a nduroog France Gibraltar. quatorze heureusement yeggul ko quatorze zéro muy euh, mu ngi noonu kon Lens ñoom am nañ yaakaar qualifié Ligue Europa. yeneen match yi tamit gis nga ko Manchester United démb xaw a jiitu ba am yaakaar Galatasaray fekk ko fa moom it euh, daal di euh, égaliser ak moom na moom ak Copenhague danoo niil bu dee nag ci groupe B bi FC Séville ak euh, PSV Eindhoven dafa mel ni kon waa Eindhoven ñoom ñoo dem fekk Séville duma leen ci groupe C bi tamit ñoom Braga gis nañ fii it ku mel ni équipe bu bi tamit di Real de Madrid moom moo gagné waa Napoli 4-2 mel ni foofu la mbir yi ci nga xamante ni kon. mooy Ligue de Champions. Mm. Lens nag bu ñu koy wax soxna sëñ Diaw xalaat Pape Bouba Diop ne bis ni ki tey moo nekkoon. Euh, bis anniversaire anniversaire bi waaw 29 30. waaw 30 euh, waaw démb la woon kon muy démb bi bis bi amee ñu ñaanal ko moom yàlla yërëm ko. Mm, voilà euh, Manchester United moom kaam doy na waar ndaxte diggante Copenhague ak Galatasaray dernier journée bi ku ci gagné. jarul sax ñuy xool résultat match am ñu mel ni daal ñu seen destin te sax euh, Bayern la ñuy jouer dernière journée loolu tamit du cadeau mu mel ni ils sont très très mal euh, embarqués euh, ñu yokk ci tamit Chérif sunu gaynde yu jigéen ñi tey à 17h wala ca Stade Lat Dior la ñuy recevoir Égypte ci double confrontation bi nga xamee ni moo war a tax ñu qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations 2024 ñuy ñaan rek askanu Thiès yëpp. voilà Sénégal ma yaakaar ni wàllu tàggat moom. jeexagul. ba léegi ñu ngi ci kon. Euh, jeexagul na waa Thiès yëpp génn. Euh, <laughs> dem jàppale gaynde yi comme ni ko El Hadj Malick di waxee. entrée libre et gratuite kon euh, laajuñ kenn passe soutien rek lañu soxla ci suñu soxna yooyu ngir ñu qualifier mën a delluwaat ci Coupe d'Afrique bi nga xam ne ba mujj bi jotoon nañu dem ba quart de finale dañuy dem léegi ci yéenekaay yi ak El Hadj